Et te comme on dit, hein, c'est dans la musique, c'est nous dans nous, comme on dit. c'est-à-dire euh, mbaaco su demee ba am benn yëg-yëg wala benn feeling boo xamante ni peut-être am na ko si man ba mu bokk naa si ñi nga xamante ni am nañ écoute sound bi avant même muy génn joxe seen appréciation donc normal la ci ñu yokk ko doole ci kaw ñu xam ne tamit en fait musique bu baax la parce que boo gisee tamit genre euh, euh, plan de carrière u Mbathio da nga gis ne à chaque fois mi ngi essayer di di démarquer wu mi ngi essayer di chercher ay yeneen couleur di chercher ay yeneen facette te mu ngi koy réussir et je pense que aussi c'est normal que buy def benn affaire bu mel nii ñun ñi nga xamante ni peut-être ci beneen aspect bi lañ nekk parce que léegi yaa ngi gis grand dégét yi baxaw ay nit grand xamante ni la ñu ngi koy jàppale ci ay sound am ci ay production am et tout ñun ñi nga xamante ni peut-être aujourd'hui on part de la nouvelle génération bu amee benn cër si ñun am benn feeling si ñun ñu tamit yoon la pour ñu delloo ko ko loolu quoi yëg na ko jox nañ ma saan bi déglu naa ko apprécier naa ko e je pense que aussi euh, c'est normal ñu yokk ko doole et gën ko encourager tamit que ni yoon bi mu nekk nii yoon bu baax la mu bañ a teggi tànkam et incha allah rabi dinañ ko gis sur le plan international. Euh, nice. nice na gis nga euh, liggéey na ci li nga xamante ne moom la ci war a def lépp li nga xamante ne waroon na ko def def na ko ci euh, defar ko jox ko Sénégalais yi euh, kenn du ci am loo xamante ne lu parce que à chaque moom bu génnee tube Sénégalais yi accepté ko li nga xamante ne moom la ñu warloo ak moom ñu def ko tube bi def lu dul nice rek moom it. comme lu déggee ci wax rek la ñu waxaat je pense que single la boo xamante ne ne incha allah dina neex sénégalais yi euh, parce que déggati nit la boo xamante ne ne wax dégg yàlla kenn kenn xa kenn doot la wax moom mooy kan. donc bu jëlee euh, kàttanam bind benn morse bu mel noonu dégg lépp lu mu bind rek lépp lu mu rëdd rek ñëpp xam nañ ne tube lay ne donc dañuy ñaan yàlla rek morceau bi nekk tube incha allah. maa ngi leen di maa ngi nuyu assistance bi yëpp. di leen ziar di encouragé Mbathio aussi di wax Papis maa ngi koy gërëm ci ni mu jàppale Mbathio di encouragé aussi Mbathio bu baax parce que bon ñun kenn mënatuñ nax si musique lu tax ma koy wax parce que sànq Abba dafa posé benn question bu important te je pense que man j'ai la réponse parce que euh, ça bouge chez moi dama mës toog benn euh, rappeur français Paris bu tudd Végétrip euh, mu ne ma am na benn jigéen bu nekk Sénégal bu ma bëgg defal euh, duo man bon je m'attendais à ay Viviane ay yeneen kii quoi mu génnee vidéo bi ne ma c'est elle ma xool muy bàcc moo boo xam ni aussi réponse bi loolu la quoi donc am na mérite waaw ma koy encouragé bu baax di encouragé staffam ñu ko jàppale yëpp aussi